koy wax dama bëgg population Tassette yëpp dégg ko parce que mi ngi jëm si le 20 mars bi ñu jublu bon nag li ñuy wax référendum bu ñu defee bu 20 mars bi ñeenti yoon la mës a am si Sénégal bi Sénégal nekkee ba léegi loolu day wane rek ne lu am solo la référendum nag mooy lu ñuy laaj askan bi directement ndax nangu ngeen wala nangu leen bon nag bu fekkente ne kii askan bi dénk réew mi dafa dem ba moment boo xamante ne lu ko soxal lool soxal réew mi am na mu ne duma jaar fenn damay laaj askan wi nam nangu nañ am déet ngeen xam ne loolu lu am solo la li mu soxla nag mooy le vingt askan bi wuyu ko si projet boo xamante ne daf leen ko bëgg proposé pour que Sénégal démocratie bi gën fi taxaw pour que liberté yi ñu gën ko sàmm pour que citoyenneté bi gën fi sax pour que institution yi gën a dëgër yaakaar naa ne nag président bu soxlee loolu ñëw laaj askan bi lan moo ci seen xalaat askan bi daf ko war a wax waaw bëgg nañ effectivement démocratie gën a dëgër bëgg nañ citoyenneté gën a sax bëgg nañ institution yi gën a dëgër bëgg nañ liberté yi gën a sax mais si wax jooju nag dafa am ñaari ponk yoo xamante ne dafa baax ñu leeral ko Sénégalais bu njëkk bi mooy waxu mandat bi président de la république maa ngi koy leeral bëggul juróom-ñaari at juróomi at la bëgg loolu lu jara leeral la juróomi at la bëgg donc bu ngeen wootee waaw juróomi at lay def bu defee juróomi at nag kontewaale juróom-ñaari at yi muy def nii mu nekk ñaari mandat du ko ñetteel je crois que loolu itam il faut mu leer très parce que am na ñu bëgg a jaxase xelu senegal yi ne bu ñu voté oui président dafa nar def ñetti mandat loolu amul président ñaari mandat rek la mën a def bii mu nekk ak beneen bi xamante ne moom lañ koy fal bi ñëw ñaareelu leeral bi ñu war a leeral mooy que bu doon sagoom moom rek bu doon ne li ko ngëm-ngëmam dénk rek lay def bii mu nekk ni sax juróomi at la koy def ne nag suñu xarit Thiaw wax na ko tout à l'heure bi Sénégal nekkee Sénégal ba léegi benn président musul rendi conseil constitutionnel benn président musul mbéj conseil constitutionnel benn président musul wàññi war ma conseil constitutionnel lu tax ñu bëgg nag Macky Sall commencé ko pour rey république bi loolu du ko def. très bien bu conseil constitutionnel. bu conseil constitutionnel ne lii mooy droit bi lii la war a def lii mooy li xamante ne bu ko defee mu méngoog charte réew mi moom daf koy topp. moo tax mu bàyyi li mu bëggoon mooy juróomi at topp li xamante ne moom la réew mi bëgg mooy juróom-ñaari at si mandat bii mu nekk am na ñu ne ndëkk am na ay professeur u droit ñu lim ko ba mu mat 45 ñu def analyse ne ñoom avis la président mënoon na def leneen ma wax ne nag te loolu il est important ñu leeral ko il faut que ñu def la part des choses entre lu ñu wax doctrine ak li ñuy jox loolu l'autorité de la chose jugée ou la chose décidée donc tin nag xam nga mooy lan mooy képp ku xam a xam-xam képp koo xamante ne war nga mën a réfléchir si benn matière bu la neexee nga jël sa këyit wax sa xalaat ñu respecté ko am na doctrine si médecine am na doctrine si droit am na doctrine si sociologie am na doctrine si la matière constitutionnelle doctrine bi gën wax nag doctrine bu am yaakaaram la am na beneen doctrine boo xamante ne ëpp nañ sax 45 plus d'une cinquantaine de constitutionnalistes ñu ne conseil constitutionnel li muy joxe ay décision la te kuñ ko jox da nga ko war a sàmm. bon dëkk c'est la parole d'une doctrine mm-hmm. contre la parole d'une autre doctrine mm-hmm. dëkk bi nag bu tolloo foofu lu ñu war a def. il faut se à l'autorité de la chose décidée. Très bien. Conseil constitutionnel de c'est la juridiction la plus important bi gën a màgg suñu dëkk. bon ndëkk juridiction boobu bu ko Sénégal naxasalee Sénégal mi ngi daaneel boppam bu ko Sénégal ñàkkalee fayda Sénégal mi ngi daaneel boppam bu ko Sénégal ñàkkalee worma Sénégal mi ngi daaneel boppam. bon taille à partir de Tasset, je lance une large campagne nationale pour la protection du Conseil constitutionnel. Très bien,